comme niñ ko gisee jeune directeur venant des États-Unis mhm. mon père est riche ma mère diriyanke en mhm. classe mhm. donc moo war a jàkkaarloo ko askan bi dëgg la euh, Jules ñu gis la ci film bi nga nekk nga firi ci nekk ci tey koo xamante ne bi tey maanaam papaam dafa am lu mu ko war sas maanaam jox ko entreprise moom mu war ko téye comprendre nga léegi ma bëggoon xam exactement yow Jules naka nga war a mën entreprise boobu ba entreprise bi tey du daanu ci biir film bi en tant que jeune li ñuy def mooy def def simple nekk directeur nekk xale dem jàngi comme ni ma ko waxee tey àdduna bi fi mu toll jamono moo ko laaj. Mm-hmm. foog nga yëg soog a nekk. Mm-hmm. foog nga am xam-xam ñu door a mën a gis ci yow xarañ. donc comme on dit fu fu fu xarañ nekkul. Mm-hmm. ndam du fa ndam du fa du fa du bëri tànk mm-hmm. donc te léegi nag jamono fi mu nekk foo moo jeex mm-hmm. man ma nekk xale sama dénk dénkam entreprise ñaari sas la mm-hmm. benn bi samay moroom yi may seetaan samay moroom yi may gis war naa wala bon exemple parce que tey liggéey jafe na ku fi jox liggéey danga ko war a liggéey donc damay incarner loolu donc sa papa liggéey itam jaar fi mu jaar ba tey taxawal lu dëgër yow waroo ñëw foo yàqu loolu dafa war a jëm kanam. am tànki kanam warul am tànki ginnaaw. Jules mu bëggoon xam exactement euh, lan nga yaakaar ne moo tax ñu jox la role boobu. ah bon peut-être sama charisme. Mhm. xam nga ñi xam ki xam ne tam mooy def casting bi moom moo xam ban genre type ban type de personne la soxla. Mhm. donc man on m'a appelé je ma ñëw présenté wu comme tout un chacun. Mhm. après mu xool ne peut-être man yaakaar na ne war naa ko mën a. jouer li mu bëgg mhm. et puis man ci def sama këm tray katan peut-être mhm. nak yalla nak moy matal mhm. mais man peut-être ñima xam aussi xam nañ ne man je suis comme ça naturellement je suis comme ça ouais OK voilà bëggon na xam tam exactement parce que tay euh mën naane film bi léegi tey da ngay doon loo xamante ni maanaam da ngay nekk benn star quoi star ngay nekk parce que tey boo xoolee bu njëkk ba mën naa ne ñu bëri xamuñu la woon mais tey boo feeñee te la ñu commencé la wane xam nga après da ngay nekk benn célébrité mu bëggoon na xam exactement après célébrité boobu yoon naka nga ko fas yéenee dundee. non man je dirais pas célébrité parce que déjà peut-être nit ñi ay ay degré la. Mm-hmm. am na ñu la xam am na ñu la xamul. mais man tay ji film bi du yok trop trop trop trop peut-être sama sama sama nan la wax sama sama sama image fenn fi parce que peut-être déjà peut-être cert aduna ñep mënu lo xam mhm. peut-être télé dina tax ñu bari ñu lo xamul xam la ñu la gis xam la mais man peut-être milieu bi gan laa ci duma ci gan. Mhm. donc de ce fait que naturellement ni mu doon dundee laay dund. Mhm. man comme ni ma la ko waxee sànq rek Mbirkilaan laa jógee. Mhm. sama yaay nekk Lébu ma ñëw Dakar donc du ma am lu ma war a mën a changer quoi si jamono lu mu mënti mënti nekk. séeréer bi ma doonoon lay doon. Xalif Awa Bakar Ndong. dëgg la la nga yaakaar ne moo def sa originalité ci film bi. si film bi peut comme ni ñu koy waxee rek en tant que jeune directeur avoir benn charisme bu am solo et puis comme ni ñu koy incarné wane na diine dafa ànd ak ak ak ak modernité mhm. dañ ma yóbbu ma dem jàngi alxuraan pare ñëw dem ba États-Unis jàngi ñëwaat mhm. donc ñaar yooyu su bu nekkee ci nit et waroo mën a incarné leneen lu dul lu jaar yoon quoi mhm. mais ci biir film bi dañ leen gis na yow ak sa rakk ah. mhm. seen papa def leen def nitu diine. Mhm. maanaam da ngeen ñëw fekk seen papa nekk nitu diine. Mhm. est-ce que yaakaaroon euh, comme jamono tey dañoo nekk foo xamante ni bii parents yi bu ñu wanee ginnaaw rek. ñu trébuché wala ñu changé quoi est que loolu noonu après du am si si si si ci ci sa ci sa avenir nga jékki-jékki jaar beneen boor boo xamante ne sa papa jaar loolu fa woon. waaw loolu xam nga xam nga téléfilm tant réalisateur bi. moom orientation yi mu bëgg ci film bi. Mhm. ñun direction boobu la ñuy jël. comprendre mhm. loolu du ñu ergan parce que moom mooy bind moom mooy teg ne lii ak lii ak lii lañ bëgg a peut nag ñun ñun di suñu touche mais yëpp ñu resté si même cadre mhm. donc nag te diine moom comme ni nga waxee seen papa li mu def noonu amul lu ko gën képp koo xam ne yaa ngi ci diine booy boo nga jàpp ku ci nekk loon booy boo nga dem ci keneen nag ku foo ba bàyyi sa diine nekk ci leneen même ku ko defit yaa ngi ci erreur mais euh, dina moo njëkk te mooy mujj. moo njëkk moom mooy mujj. voilà ñu gis la tamit ci film bi ba tey damay def ci film bi rek. Mhm. <laughs> ma gis la euh, nu ma koy waxee ban ban ban ban ban film nga ngay ngay seetaan boo xamante ne neex na la bu bokkul ak seen film bi ban série. man su ma mosee seetaan benn film boo xam ne ça m'a vraiment marqué c'est un DG peut en cacher un autre. boobu moom c' est film bi nga xam ne. seetaan naa ko trop day film Sénégal quoi. Mhm, mhm, mhm. mais mais est ce que Jules moom dafa bëgg yam ci série Fanta kese wala après am na avenir pour jouer yeneen film à part bi. Euh, comme on dit rek peut être l'appétit vient en mangeant. tey jii encore une fois. Saliou Ndiaye mi xam ne moom moo tax tey ñu jur role bi. donc encore une fois dañ koy gërëm di ko sant. peut-être certes suñu xel nekkuloon sax si un jour dinañ mës a mën a joué film. peut dañuy gis ni que ça nous intéressait ni mais xalaatu ñu ne dinañ dem ba tay ji ñu tok di jouer téléfilm te nak peut-être yalla indi na ko ci kanam tam dañuy bàyyi. Mhm. peut-être l'avenir va décider de tout. à part à part film bi lan lay def. là je suis maa ngi liggéey. maa ngi job maa ngi job benn góorgóorlu laa buy daan doole. Mhm. waaw. benn séeréer bu ndaw boo xam ne saa yeewoo daal mi ngi uti am pour njaboot gi daal. noonu la noonu la ok su ma boo doon am conseil booy joxe tey. Mhm. ci film bi ñi nga xamante ne ñooy seetaan. Mhm. lan nga leen di wax ne moom lu film bi di wax exactement. film bi tantôt au début je te l'ai dit. Mhm. film bi dans l'ensemble muy wax c'est un jeune bu papa am investir. fayal ko mu dem jàngi ñëwaat bu papaam yar. ba pare parce que tey tey tey bu ñu xoolee. teaser bi gis nañ ci Fanta. Mhm. gis nañ ci Jules gis nañ ci Meya mais am na ñoo xamante ne exactement boo leen ko doon tënkal. Mhm. maanaam ci benn deux minutes rek. Mhm. wala benn une minute rek nga tënkal leen ko rek ñoom dinañ xam exactement film bi lan lay wax. certes moom laa la wax que film bi c'est juste que un père de famille bu investir ci njabootam. fayal doomam mu dem jàngi ñëwaat. mu dénk entreprise. xale bu góor bi dox suba boo war a jàkkaarloog beneen xale bu jigéen. ok mu war a yëngal boppam. Mhm. donc ah, papaam nag xale bu jigéen boobu nag. moo mhm. taxoon nag may laaj parce que tey am na ko xam ne ciy gis Fanta mais xamul exactement Fanta ak Jules lan lañ. seet ci kooku mooy yëngal Jules. ok waaw. kooku mooy mooy yëngal Jules. Mhm. mu jaaxle trop. te comme on di xam nga tey bu ñëpp di wëri ay xale ay xale carte ga man dama naan. romb nañ jamono boobu. Mhm. léegi dañuy wut góor cinq étoiles. si biir film bi après naa leen tojal lan mooy góor cinq étoiles. mais lu mu leen ko wax tey dama koy jënj ba ci kanam. dëgg la <laughs> waaw léegi euh, lan mooy ay projet Gilles. comme tout un chacun rek ah. liggéey jaamu yàlla. sama mhm. projet yëpp ci loolu la liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla

bi mu ci même lancé bi la nek mhm. mais man j'ai un directeur bo xamné là où je travaille fa la nekk à chaque fois lui ñuy incité moi dans la vie il faut être bon yow cameraman yow photographe yow tëkkatu tama yow kat yow lo xam loy liggé ci li ngay nek il faut nga xarañ ci. Mhm. il faut être bon dans la vie. Mhm. ba nga xamné ne ki la jël ki lay fay ki lay yaakaar ki lay seetaan fu mu mënti nek mu xamné yow li ngay def da ko mën. mais Jules est-ce que bi ngay jouer film bi yaakaaroon nga ne ding ko réussir comme ni ko réussir ni donc réussir naa ko réussir ma ko peut-être loolu je le laisse de si ñu koy seetaan. Mm-hmm. man li ma xam rek mooy peut-être liñ ma jëloo. ci mm-hmm. environnement bi ma nekk c'est un loolu laay dund presque au quotidien donc tam li ma mën sama xel ak sama xalaat moom laa ci def. dégg nag ñiy seetaan nag ñoo naan peut-être ñooy xam peut-être lii réussir na ko wala réussir ko mais man su réussir mooy sama yéene bu amee lu ci manqué aussi sama yéene mooy daal képp ku ko seetaan mu neex la. Mm-hmm. xéxil ko ñi ngi lay jaajëfal waaw sant gërëm di ñaanal waa sénégal yu lan ngay wax waa canapit ak waa site bi nga xamante ne ñi ngi ñu ko ubbil fanta lan ngay wax di leen wax ne que dans la vie il faut oser il mhm. faut oser tey il faut oser ne mhm. keneen oser keneen oser et puis lépp looy nekk comme ni ma ko waxee rek dernier moom dans la vie il faut être bon mhm. te pour nga pour nga nekk au top nag du tricher du yaafus du yox yoxi il faut que nga dem gëstu ji tegu ci yoon jub moo lay tax nga être au niveau. ok ok <laughs> rafet na.